tey ñu ngi ci 32 deuxième jébbale suñ borom subhanahu wa taala dogal na ne def nañ ko ni ko daan defee ci kanamu suñu maam Thierno Mbacke ñu dikk ci waxtaan yi nga xam ne ak ñu ko seqaloon xëy na dañuy def lu du présenté leen lu du présenté ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal muy jëwriñ ñi fi nekk yëpp. ci section yi muy section bi nga xam ne mooy tuba suñu Xaadim Jaxate nekk ni suñu wet section Ndiarème Baye Serigne Diop caaya ko section Oros Béthio Soxna Dior Ndiaye section Darou Minam Saloum sëriñ Mountakha Touré sëriñ Khadim Cissé teewal ko fi section Mbour sëriñ Assane Dieng président teew fi euh, section diaspora ci ñi di sëriñ Sidi Cissé sëriñ Cheikh Darou Thiam teewal ko fi section euh, Bignona ak li ko wër yëpp muy Casamance gi région du Sud bi yëpp sëriñ Baye Dame Fall teewal leen fi ci njiitu sëriñ Ibrahima Diop. ak euh, section Daaru Minan Saloum ñëw nañ ñoom ba joxe seen at ba wàññeeku noonu di kazalika section Thiès soxna Awa Cissé ak mbooleem section yi ci des yëpp ak soxna yi kon ak mbul mbul kay la sëñ Ibrahima Ndiaye teewoon na fi Ndakaaru Ndiaye sëriñ Mountakha Babou mi ngi fi teewal fi sëriñ Mountakha Sourang ak sëriñ Basirou Ndiaye kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp xanaa duñ def lu jox kàddu yi kilifa yi nga xam ne ni ñooy eh, président jëriñu section yooyu ren na ñu tënk ko ci section yi en section yi yëpp boole yenn ñu nekk génn Touba jël seen kaddu jox ko bàyyi sëriñ Diop Thiaye ko ngir mu jàllale seen i kàddu ci seen cant ak seeni i soññee ci yi ñu jëm kon ñu jox Baye Serigne Diop Thiaye comme àggale kàddu yooyu incha allah. mbokk yi daayira ahlu tarbiya wa tarxiib li kulli man yaxtamu bi xidmati Seydil ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare di yaakaar Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér ba naal yi mu naal ko liggéeyal maam Serigne Touba mu àggale ko te ànd ko taalibe yi di siyaare mbokki taalibe yëpp ci liggéey bi nga xam si ne mu lañ doon jébbale tey muy. addee axlu tarbiya bi ànd koog suñu mbokki section yi nga xam ne comme ni ko suñu Abdoulaye Ndiaye waxee rek en communication yor liggéey bi yàlla di ci def lu am solo ci communication ci sama ginnaaw sëñ Xaadim Cissé jógee ba Darou Minam Saloum wax dëgg yàlla kenn ku xam ne fii jamono toll ci nawet waaye xëy na liggéey bi jarako rek ñu ñëw dajale lépp loo xam si seen addi la ah indi ko ci liggéey bi a ah, xëy na mbir moom kàddu sañ rek la. ndax yàgg nañ koo def miin nañ ko nag ndax lépp loo xam si ne rek def nañ ko rek ah, am na leen nekk suñu kanam loo xam si ne xëy na moom lañ moom la ñuy gën a gën ma taxaw ci lépp nag ci waxtaan rek ak euh, bàyyi xel liggéey bi bu baax a baax ndax li ñu weesu rek nañ xam li lekk suñu kanam moo ëpp foofu waaye nag yàlla nañ ci dugg ci bismillah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin ndax loolu mooy ah, liggéeyu yoonu mu waaw loo weesu rek. weesu nga ko li sa kanam da nga dëngmal ah kon nag euh, nañ xam ne mboolem loo xam ne def nañ ko daal ci liggéey bi ah nañ ci gën a nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax tey gën di waxtaan ah, lu jëmale liggéey bi kanam xëy na jëbale bi ñuy def nii nag dafa dafa spécial moom wax dëgg yàlla bi ñëwee ci kër gi suñu mbokki donc altar bi ñu ah, ci fekk ci suñu njiitul daayira Serigne Ndiaga Seck di président daayira bi section yëpp nekk ci ginnaawam wax dëgg yàlla moom it ànd ah, ñu bokk liggéey bi ci kër gi ah daanaka boo limee sax da ngay da ngay da ngay juum waaye wuñ kenn ci kër gi wax dëgg yàlla ñëpp taxaw jébale bi xëy na nag ah, ni ñu ko bëggee woon sax sëriñ bi génn ah, xëy na fi jamono toll moo moo tax ah, xanaa benn yoon rek jëm gën bàyyi xel ni ñuy jébalee rek ndax dama naan jébale moom bu bëggee date saa su nekk ci la 15 rek ah la bi dama naa ñëw am lu tombeel te mbirum daayira kenn ku ne xam na it chaque jour day day yokk waaye ci kaw ni ko nit ñi gisee. ci mbooloo dina taxit maanaam sa sa saa boo jëbalee daayira ba pare rek di nga amaat ñeneen ñu ñëwaat loolu na ci image su jëbale moo koy waral kon image su jëbale luñ ci luñ ci gën a mën a gën taxaw rek mu gën a rafet rek dina dina solo lool lool a ah, kon nga koy bàyyi xel bu baax daal di waxtaanu mbirum daayira bi te it waxtaan wi it luñ ci wax na xam ne ay dongo lañ kenn mënu ñoo xajale ndax comme ni ko suñu maam Thierno waxee rek di suñu jëwrin boole rek moo ñu war ndax luñ gën a booloo rek loolu mooy mooy bëgg-bëgg sëriñ bi ndax sëriñ moom jàmm rek la ñu bëggal ndax léppam jag na kon ñun ñun suñu suñu mbir jagagut kon yàlla ñu sëñ bi gën a dool dimbal rek te xam ne matuñu dañoo bëgg ndimbal ak xewal rek ndax dañuy jàmbar amut kuñ dimbalee am kon yàlla ñu sëriñ bi dimbalee boppam ba lépp loo xam ne si ne daal ñoo ngi koy dëgmal di ko bëgg rek ah sëriñ bi jàpp nañu lépp gàtt nañu ci ndax xam ne lii moom suñu man-man ndax biñ biñ jubloo jébbale bi xaw nañoo am tiitaanga lool ci yaakaar na affaire yi sax ndax murid moom da bëgg ngóor day bëgg saa su rek fi mu fi mu toll benn yoon bu ñëwaatee rek mu toll fu ko fu gën a kawe ah yàlla def na wax dëgg yàlla tànk yi ginnaaw tànk kanam lañ am kon li ko mbokki taalibe yi waxee rek Sëriñ Tuubaa moom ay mbiram amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am kon loolu moom suñu jëbal tey bii wane na ko ndax biñ jëblee biñ biñ jëbee dayra ah biñ jëblee jëbal bi xëy na ñu ci bari a ah, doon nañ am na ñoon waxe waaye waxe soññe la woon rek ak waxe bëgg ngóora ak bëgg ndam lii lañ bëggoon rek jëbale bi teel ah ñu jekk ko te mel ne nag loolu am nañ ci lu kawe ñu wax di yàlla jébbali bi ah, teel na ah sëriñ bi génn na ah lépp yemb na nañ ko daal dafe daal defe nañ ko ni ko raw wax dëgg yàlla kon ñoo ngi sant ñëpp ah di sant yët suñu ah, mun rak Muntaxa Njaay mi nga xam ne si moom mooy gamoo production moom it ci liggéey bi ndax yekk ñoo ko ñoo koy ànd ah bëgg ci liggéey bi yàlla ko ci yàlla jàppale ndax buñ ko buñ day gis liggéey am mu mu di ko wone ah, loolu day gën a wone ne moom mi mi suñu biir kon loolu ngeen ko gën a ñaanal bu baax a baax rek fa mu bëgg àgg ci liggéey bi daal yàlla na ko fa euh, euh, ak mboolem ñoom mun taxaa ñoom ñi koy jàppale ak ñoom ñëpp rek bàyyiwuñ kenn kon daal loolu mooy doon suñuy kàddu ci jotaay bi xam naa ne nag doomu moom matut lu ci lu ci jub rek ndimbalul yàlla la lu ci dëng nag xëy na matut doomu aadama la ñoo ngi jégalu bu baax a baax jërë ngeen jëf. ni ko Baye Sëñ Diop Thiaye ko waxee rek di nuyu Serigne Ndiaga Seck président ahlu tarbiya gi yëpp. ak soxna si Siise mi nga xam ne maa ngi ca waañoo sëñ Muntaxa menal jaar na ca moom moom fa a njëkkee ndax seen Pastef ak soxna yi yëpp kon ñu ngi jox kàddu gi sëriñ Xaadim Jaxate mi nga xam ne mooy président section Touba li jërë jaajëfal Baye Serigne Diop Thiaye ko ci kàddu yi nga xam ne da ko yëkkati yëkkati ko ci mboolem section yi nga xam ne yëpp dañoo nekk bitib Touba tey moo jël seen kàddu ci seen tur kon duñ def suñu soññ ñu soññ leen ñoom comme ni soñ soññee ñi nga xam ne ñoom lañ jiite tey di jaajëfal ñañu jiite bu baax a baax ndax seen yëg-yëg ak seen pastef seen liggéey ndax président section wala ku jiite ndam la nga am ña nga jiite ñoo la ko may li la ñaanal tawfeex rek bu baax ak xéewal ak sutura yu sax dak liggéey liggéeyal sëriñ bi kon jox sëñ Xaam Jaxate mu wax ci turu section Touba ak li war daara jépp incha allah ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh noo ngi siyaare mbokki ahlu tarbiya yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn ci seen teewaay bu rafet ci seen liggéey bu rafet ci seen yitte ju kawe ba am ndam yi nga xam ne am nañ ko muy loo xam ne seen mébét la woon muy juróom benn weer yi nga xam ne moom lañ fas yéene dundal daara ja muy daaru tansil suñ rakk ya fa nekk di fa jàngee ak suñuy doom ak suñuy jarbaat ñoo sasoo ci sasoo xam ne juróom benn weer yu nekk ñu bëgg yaa jébbale quatre millions cinq cent ak xat-xati jamono yi ak yitte yi nga xam ne am na fi ne nii mu mel ne suñu borom dimbaleete nañu ndax ndimbal rek am jamono ji xat na lool waaye li muy xat xat xat xat suñu borom defal nañu tawféex ba juróom benn weer yooyu day mel ne marqué nañ ko fi ne muy quatre millions cinq cent yi kon jébbale nañ ko ñii ma toggal nag mooy président section yi kenn ku nekk ànd ko sa section liggéey ko ba liggéey bi noppi nii ñu mën cee présenté Serigne Diop Thiaye ko Diourbel moo taxaw nii moo moo toog nii ak Serigne Assane Dieng Mbour ak Serigne Khadim Cissé Daaru Minam Saloum ak Serigne Cheikh Daaru Thiam diaspora ci teewaayu Serigne Sidi Cissé ak Soxna Dior Ndiaye Ross Béthio ak Serigne Ibrahima Ndiaye Touba Mbul ñëw na ba dem ndax yitte yu kawe ndax waxtu nawet bi ba tey suñu Khadim Cissé ngi nii ba tey ci teewaayu Serigne Mountakha Seye moom it jógee ba Gàmbi loolu lépp ci ay yitte yu kawe dañuy wax euh, euh, bindoonaa Serigne Ibrahima Diop ci teewaayu Serigne Dame ah. Serigne ci teewaayu Serigne Dame Fall bindoonaa euh, jëwriñ Serigne Ibrahima Diop ci teewaayu Serigne Dame Fall. Thiès soxna Awa Cissé moom it tabaarakallaa tabaarakallaa waaw soxna Awa Cissé Serigne Bassirou Ndiaye Ndakaaru ànd ko Serigne Mountakha Sorom. ak mun Mountakha baabu moom it moo fi nekk fii ci kër gi te teewal fi tey sëñ Bassirou Ndiaye ndax dafa mel ne dafa absent ah, lépp nag wax dëgg yàlla ak cant rek la daanaka Serigne Diop caaya ko bi mu waxee rek daanaka ñun ñëpp sax mënoon nañoo yemale foofu kaddu yi ndax wax dëgg yàlla ñun sant mënut a weesu sant ni ko sëñ Maam Thierno Mbacke waxee te it lu ci nekk dafa spécial ndax yëf bett nañu waxtu wi bett nañu ah, te lépp sunu borom dimbali nañu ba yamb na ci barkeb sëriñ bi. noo ngi ñaan daal ñun ñi ànd liggéey bi ak ñëpp ñoo xam ne am nañ yéene liggéey Serigne Touba waxtu wu nekk ñu di ko gën a jekku di gën a wér taalibe Serigne Touba yëpp yi am yéene Serigne Touba yëpp yàlla nañ gën a jekku liggéeyal Serigne bi am tawféex gu liggéeyal Serigne bi waaye Touba yi dafa am loo xam ne lu spécial la lu ñu koy sant waa Touba ñoom dafa am noo xam ne taxawaay boo xam ne dañ cee war di taxaw waxtu wu ne ndax bu gan yi dee dikk ñoo leen di dalal a ah, kon day mel ne buñ tuddoon tey fi ne waa waañu tudd ci soxna Xadi Sise ah tudd ci soxna Ayda Dieye tudd ci soxna Fari Cissé tudd ci soxna Gaddu Diop tudd ci soxna Xadi Jaxate maanaam tey bu doon lim du egg ak soxna Fatou Kiné loo maanaam ñoom ñëpp ñu ànd ci jigéen yi def liggéey bi na mu waree ba waxtu wi li muy xat-xat nañ ko bëggee amee na ko noonu kon loole ñoo ngi leen ci sant di leen ci gërëm ñu amit loo xam ne lu spécial la muy suñ secrétaire général mi ngi nii Serigne Mountakha Diagne macha allah li ñuy wax son très bien ah ñu am ñoo xam ne tabaraka la Serigne ñoom ñëpp di ay professionnels yoo xam ne waxtu nekk ñu ngi dundal daayira bi fii ci Touba sëriñ Abdoulaye Ndiaye mi communication nga xam ne ni ñu ŋànkee daayira bi waxtu nekk ñu ngi seet lépp loo xam ne ni tag-tag la ci loo xam ne nii day dundal daayira bi ci bitti waxuma la nag sax ci section Touba kon loolu cant la goo xam ne cant gu mag mu leer na kenn ku nekk ci ñoom rek bu waxoon fii dana wax lu ëpp solo wax ji may wax kon loolu it ñoo ngi leen ci sant ba tey suñu trésorier fàttewuma ko sëriñ Modou Diop ba tey sëriñ Modou Sylla ci organisation ak sëriñ sëriñ Diop Mourid Sadikh wax dëgg yàlla macha allah buñ doon limite dañ doon matal dañuy yamale foofu kàddu yi rek te di fi jaajëfal suñ mbokki section yi kenn ku nekk daal ñu ngi am mbégte ci yow te ni ko sëñ maam Thierno di waxee noonu la réclamé kenn ku nekk nanga jàpp ne dangay dimbale sa morom rek saa boo gisee sa morom nga jàpp ne na lay dimbalee rek man de rek laa gis maa ngi leen di ñaanal tawfeexi sëriñ bi ak ndimbalu sëriñ bi ak yër yërmande sëriñ bi waxtu nekk yàlla ñu sunu borom gën a may wér gën ñoo dolli aw fit te def na ay murid saadix yu dëgg lool yu bëgg sëriñ bi te muy dëgg ci ñoom te def nu ñu nosu te def ñu ñuy dimbalante saahiran wa baatin maa ngi baalu xaq ñëpp di leen baal tey wax waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëfati di tëje kàddu yi rek di wax ne képp koo xamante ni da dégg da gis image yi wala ngay dégg kàddu yi xamal ne daayira bi sab daayira la muy dong bi nga xam ne dafa muy tudd Cheikh Mamadou Mountakha wala taali bi nga xam ne dafa jébul Cheikh Mamadou Mountakha wala taali bi ak foo mën ci jébbaloo gën jaa ñëpp lañ ci woo mu ab jullit lañ ci woo ndax julli liñ ci woowee ab jullit mooy liggéey bi yëpp ci alxuraan la tàmbale ci la yem te alxuraanu karim képp koy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallaahu alayhi ci nga bokk kon liggéey bi liggéey bi ñëpp la kon ñu ngi ci gën a yaatal bunt yi bu baax ndax mustaxat ndax biñ ne daa'iratu tarbiya wa tarxiib li kulli man yaxtam bi xidmati Cheikhil Xadim booba lañ la woo kon bi suñ tuwaana yaa ahla bahri yaa ahla bahri nam woo waa jéeri woo waa géej kon fi mu ne képp koo xam ne léegi yittewoo nga liggéey Serigne Touba ñu ngi la ciy woo képp koo xam ne yittewoo nga liggéey alxuraanu karim ñu ngi la ciy woo di ci bàyyi loo xel ñëpp di bàyyi loo xel membre yi baax a baax ñu ko gën a mën a yaatale ñu ko gën a mën a uh, xamale ñi ko ñi ko xamut ñu ko ñu ko gën a mën a fàttale ñu ko fàtte woon tam ñu fàttale ko noonu di gërëm suñu mboolee mbokki magi taalib yi fi daje yëpp ku mel ne uh, Baye Talla Xumma ma Mañang ñoo ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ah di wax di taxaw ni ci kàddu yi foofu yi wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taaliba yi yéen waa ahlu tarbiyat wa tarxib li kulli man yaxtam bi xidmati Cheikh al Xadim noo ngi leen di nuyu lu bëri lool te di leen siyaare te di leen balaq waaye ñu jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamed al Muntaqa ibn Cheikh Mouhamed al Bachir noo ngi koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam te mooy ki wér ak kàttan fi mu am yéene yóbbu fa liggéey Sëriñ Tuubaa bi mu yor suñu boroom kattanal ko yóbbu ko fa sàmm ko aar ko ba dara du ci yàqu ci barkeb Seexul Xadiim ñu ngi leen di lu bari lool te di leen balaq ah, di nuyu bu baax a baax suñu jëwriñ Sëriñ Jaga Sekk di nuyu baax baax jëwriñu Yaay Faal yi soxna Xadi Siise di nuyu itam président section yëpp yu ñu bokk liggéey bi nga xam ne dañoo nekk ci gox yi fasant ci réew mi ñu fas yéene rek tàbbi ci liggéey bi ngir leeral leen pas-pasu mbokku taalibe yi ñu liggéey bi yëpp. section Touba ci njiital Sëriñ bi Jaxate am nañ un million sept cent huit mille cinq cent section Dakar ci njiital Sëriñ Muntaxa Sourang am nañ quatre mille euh, quatre cent soixante et un mille sept cent cinquante section Njaareem ci njiital Sëriñ Ilimane Gueye am nañ cent cinquante mille cinq cent section Thiès ci njiital soxna Xawa Siise am nañ deux cent cinq mille section diaspora ci njiital sëriñ Sidi am nañ un million cent vingt mille section Daaru Minam Saloum ci njiital sëriñ Muntaxa Touré am nañ deux cent cinquante mille section Touba ci njiital sëriñ ibraahima Ndiaye am nañ quatre vingt section Ross Béthio e ci njiital soxna joor Ndiaye am nañ cent un mille cinq cent section Bignona ci njiital sëriñ Ibrahima Diop am nañ cinq cent mille section Mbour ci njiital sëriñ Hassan jang am nañ trois cent trente mille euh, kon loolu mooy section yi nga xam ne ñoo fi daje woon ñu fàttali leen rek amoon nañ ci fond de caisse ba neuf cent dix-sept mille laay yi sëñ Mut si la doon jaay ak sëriñ ca am ñoom Euh, biñ ni ci jot a versé li ci jaragun am na mu ngi nekkoon trois cent quatre-vingt-seize mille cinq cent versé nañ ko kon boo totalee section yi ñoom li ñu am ci ci bis bi ñi ngi am euh, quatre million neuf cent quatorze mille sept cent cinquante mooy li wàcc ci section yi bis bi euh, Euh, fond de caisse gi wax naa ko léegi bi nekkoon neuf cent neuf cent dix sept mille seize cent ak trois cent quatre vingt quinze mille seize cent yi walla yi indi kon léegi biñ ci génnee fere yi muy jébbal ci sëriñ bi eh, quatre million cinq cent fere yi bis bi ñu siyaaree sëriñ Maamoor sëriñ Maam Cerno Mbàkke mu Seex cinquante mille sëriñ euh, sëriñ Maam Cerno moom lañ siyaaree cinquante mille yi sëriñ Maamoor ñu siyaaree ko vingt mille yi sëriñ Ibrahima Mbacke làmp moom Cheikh Amadou Muntaxa ñu jox ñu charré ko quinze mille yi taxa Seck euh, dañ ko daan def moom moo daan def waxtaan wi tey mbir mi dafa xat charré nañ ko cinq mille sëriñ Muntaxa Gueye Souley cinq mille mun Muntaxa Ba dama jum def saar Muntaxa Ba mi yor euh, film bi caméra bi ñu neexale ko ñaari junni euh, fere waañ wa mi fere liñ fere ci waañ wi mooy añ beeg yi ya ca aju mi ngi nekk cent quatorze mille trois cent cinquante waaw euh, facture yu ñu defoon ay rogi ak yooyu mi ngi nekk treize mille francs lépp boo ko totalee ci fere yi mi ngi nekk deux cent trent deux mille trois cent cinquante kon loolu mooy fere yi bi noppee li fi desaat fi mu toll li nga xam ne mi ngi ci fond de caisse bi kon muy un million cent soixante cinq mille cent cent mu nga fi des kon fond de caisse bi dañ ko jàpp yéen ñëpp mu ngi nekk un million cent soixante soixante cinq mille seize ans waaw kon loolu mooy li xam ne moom moo fi daje ñi ngi leen di siyaarale bu baax te di leen gërëm nag den leen sant bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla ay ay jàmbaar ngeen jamono ji fi mu toll wax dëgg yàlla euh, metti na lool waaye ñu sant yàlla rek te xam ne sëñ bi moom moo ñu liggéeyloo du ñu bàyyi mukk ndax donte am nañ ay bees rek wax dëgg yàlla bees nañ bu baax a baax ndax section boo gis rek am na perte lu néew néew cinquante mille waaw tubaa am na am na moom manqué na kay Touba am na am na am na am na beese na lu tolloog tubaa beese na quatre-vingt mille tubaa am na manquement quatre-vingt mille loolu moom section yëpp la dal kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm li ci des nag mooy xanaa di leen fàttali rek loo xamante ni ñu bàyyi ko xel ñun ñëpp eh, ñu bàyyi xel ñu ñëpp nangeen xam ne yéen jigéen ñi ay jàmbaar ngeen oma yi ngeen jaayante ak saabu yeeg yëpp ngir jëme ko ca daara ja lépp agsi na kon ñu ngi leen di ñaanal sëriñ bi fayal leen boppam ci barkeb sëriñ Tuubaa la ca topp itamit ñu ñu ñu ñu la ca topp la ca topp ngeen may ñu ak digloo ngir yàlla gëm sëriñ Tuubaa la ca topp mooy eh, ab soññee rek boo xam ne dañ koy soññee di ko fàttali suñu bopp te di leen ko fàttali muy liggéey bi ñuy def dañ koo jaayante ak sëriñ bi di ko def kon nañu xam ne nañu ko daan waxe loolu lañ di waxee sëriñ bi bu yebaloon mun taxaa géeyum suñu Basiiru Gay ma ci biir wala mun taxaa si la wala Seexuna si la ba ci Abdou Faati mii ci kenn ci ñenn ci nekk ci ñoom nañu doy sëkk sëriñ bi xam nañu xam nañ ko rawat na moom moo ñu gën a xam suñu bopp fuuf kon nañu xam ne ku ñu fonk la ku ñu yëg la waaye dafa toll foo xamante bi képp kuy noppal sëriñ bi ñu ñoo ci war a jiit ñun njabootu boppam gii kon nañu liggéey ngir jëm yàlla ak jëmmi sëriñ bi gis gi day dana neex lool ci suñu xol waaye bu yàlla dogalee ñu koo gis nañ ko def mbégte nañ ko def banneex te góor góorgóorlu te xam ne gisi xol mu ñuy gis moo gën ci ñun fuuf sëriñ bi mi ngi ñuy gis bu baax a baax xëy na ñun ñoo ko man a gis waaye moom gis nañu bu baax a baax te liggéey bii ñuy liggéey ni ko sëriñ maam Thierno waxee ndax euh, day kàddu gu am solo ne neen sëriñ bi nee na léeg-léeg mu yëkkati dara jëmee ko ci daara ja waaye suñu liggéey bi dana tax mu bàyyi fa loola ba xaw ko fàtte kon liggéey bi am na solo lool kon nañu buñ naw liñ def nañ ko xeeb tax te jàpp ne defegun dara buñ ko defee rek dana lii nañ jëm na waaye buñ jàppee ne ñoo ngi def rek danañ dana gestu sax buñ gestoo dana taxaw ndax gestu moom waral naagu te ku naagu taxaw kon nañu góorgóorlu di ñaanal sang bu tedd bi Cheikh Amadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi may ko wér ak kattan di ñaanal suñu jëwriñ yi bu baax a baax ñoo ngi ñaan bu baax a baax suñu borom gën ñoo jàppale gën ñoo taxaw yéen jigéen yi na nag gàcce ngalaama ndax bu fekkante ni waa day Touba ji ñetti dërëm la yéen andi ñaar yi kon yàlla na yàlla fay te fay seen i jëkkër ñi leen bàyyi nag te yombalal leen liggéey bi dañ gën koo man sëriñ Xaadim nag dana ma mere waaye nag tey nee naa ko damaa sol bu buum secrétaire général daayira yëpp laa fi nekkal daayira bi yëpp laa fi nekkal su su lii jàllee nag ma doon membre Touba mu nekkaat sama jëwriñ waaye tey moom ñëpp laa fi nekkal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yéen mbokki taalibe yéen mbokki jullit yi dañuy sant kenn ak santam di ñu mën a ànd liggéeyal sëriñ Touba nag lépp mbir mi daal ak sant képp képp képp laa ci am cant gi sant daal moom mooy mbooloo mépp mépp laa maasa ci sant muy taalib bi awoon ci daara ji ak soppe beeg ñu nekkoon seen bàyyi te ñëpp rek sëriñ bi képp tax moo tax daal ñu ngi ñaanal ñëpp di ñaan suñ borom dool ñu tawfeex ji yaatu yoo xam ne dañ mën a am kàttan ak wér ak wérle duñ mën a liggéeyal sëñ bi ni mu ko bëggee tax daal ñu ngi lay ñaan ñun ñëpp daal coow li daal mën naa bëri nii waaye bu ñu résultat yi daal dooy génn ndam rek laa fi gis ndam képp képp képp daay gis ci kii yàlla na yàlla ak sëriñ bi doole yokk ak tawfeex ak suturaal ñu ba lépp luñ bëgg a def ci suñ borom man koo dimbale bañ man koo def barki Xaadimu Rasuul sant nañ ñëpp nag bépp section nag bàyyiwuma kenn kenn kenn ñëpp daal laa boole sant gi di ñaan suñ borom doole ñu dimbale doole ñu kàttan ba lañ bëgg lépp ñu mën koo def saa sune ak fu ñu bett rek ci barki sëñ Tuubaa ma tax daal ñu ngi dolli di sant bu wér a wér a wér te xam ne li yéene lépp daal ci xol bi lami du ko mën tudd waaye sant naa bu baax a baax muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen ñépp daal sant nag li tax dañ ñu gën a sant mooy lenn am na loo xam ne heure bu ne war nañoo dégg ñaan jëwriñ war naa wax jëwriñ war naa wax waaye nag jëwriñ am na loo xam ne dana wax ci suuf de waaye nag du wax ci kaw lam cey defetim nag mooy lépp bañ ëllëg si biir werante am rek ñu naan moo waxoon lii wala moo waxoon laa loolu képp daal moo tax sama wax du jëm ci kaw bu baax waaye lépp lu luy def lu baax buy kaf ak ree jëwriñ ko gën a bëgg ñëpp de te xam naa ne tim ni ñuy doxee tim gis ci lu rafet képp moo tax nekkuma ci kii ndax boo waxee ñaar wax boo ci duggee dana kee dana jàpp ne kee jëwriñ daa daa féete kee bàyyi ñee wala daa féete section bii bàyyi section bi loolu rek daal moo tax sama wax bëriwul ci war sa bi noonu waaye nag moom ñu ngi ñaan suñ borom dool ñu taw feexal ba lii ñu sémbal sëriñ bi ñu mën koo jëf ni ko sëriñ bi bëggee bañ mën cee am ndam lu yaatu ñun ci barke sëriñ Tuubaa di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ko wér di ñaanal taalibe yi nga xam ne ñu ànd ak moom di liggéey kenn suñ borom yokk ñu taw feex ji yaatu may ñu kàttan may ñu wér ba lépp liñ yéene rek ñu mën koo defal sëriñ bi ci barke sëriñ Tuubaa ñu ngi ñaan nag suñ borom yi ñu taw feexal ju yaatu nag di ñaanal suñ kilifa yi nga xam ne nag mu ñoo nekkoon suñ kanam ndax heure bu ñu leen wooyee ñu mën a jóg dikk fekk si ñu ànd ak ñun liggéey bi lépp luñ ci def daal ñu moom lañ koy defal waaye nag mel na ne ñun ñii lañ koy defal ndax sëriñ bi ñu boole ak ñoom te ñoo xam ne sëriñ bi képp a tax loolu nag ñu ngi ciy ñaan bu baax a baax di ñaan suñ borom dolli ñu taw feexal yokkal ñu sutura ba ak teraanga